maa ngi liggéey direction générale de la planification et des politiques économiques bu ministère de l' économie des finances et du plan comme ni ngeen ko xamee euh, Sénégal euh, dafa bokk ci euh, onze pays africains yoo xam ni dañoo war a présenter ñoom fu ñu toll ci ci mise en œuvre ODD yi donc les ODD c' est pas une affaire uniquement du affaire uniquement bu état te principe euh, directeur ODD yi mooy bu leen bàyyi kenn gannaaw donc attente bi ñu xar fii mooy que société civile wax ñu ñoom ci ODD bu ne nan lañ ci taxawee suñu boolee seen rapport ak ñun au niveau central au niveau état li ñuy def ñu def synthèse bi de ce fait on aura un rapport global pour le Sénégal boo xam ne dina jël en compte contribution ñëpp. pour na laisser personne en rade comme le disent le principe directeur des ORD. taxawaay bi cinq xam ne waaw cinq yi pour le moment côté état contribution yëpp jot nañ ko élaboré nañ côté état côté société civile moo ñu dese pour ñu def synthèse bi pour am vraiment la situation globale mais pour cinq ODD yi ñu war a présenté wu globalement résultat yi ñu jot am moom vraiment xaw na daal xel. waaw wax na des. waaw loolu ba ñuy def euh, euh, exercice bi pour l' année 2016 ci benn modèle bu naan modèle T21 c' est c' est modèle boo xam ni c' est un modèle de projection bañ ko defee te ak données yi am nii euh, daf ñoo wan ni su fekkee indiwuñ ay coppite ci njàngale mi maanaam. en 2030 euh, euh, du ñu mën a attendre objectif yu ñu yu ñu yu fixé wu mais heureusement que ñu ngi élaborer phase 2 PSE bi dinañu permettre vraiment ñu ñëwaat ci ci ci beaucoup de choses sur sur l'éducation surtout en termes de réforme. waaw comme ni ngeen nga xamee éducation moom <laughs> vraiment les gens disent que euh, pratiquement pour cent du budget est alloué à l'éducation dëgg la temps gis ngeen jéego yu état def ci ci éducation mais malheureusement. in fine résultat baa ngi nii mais nag duñu décourager phase de pièce ma ngi fii dañu permettre vraiment ñu corriger beaucoup de choses waaw man Salimata Bokoum laa tudd maay directrice su ONG Site Savers mais également coordonnatrice su groupe de travail bi nga xam ne Kongaat moo ko tëral euh, muy représenter société civile bi pour suivi yu objectif de développement durable yi euh, daje Thiès bi. tey dafa nekk ci euh, benn liggéey bi nga xam ne dañ ko commencé woon euh, pour euh, xool saytu fi nga xam ne nii foofu la gouvernement toll ci li ñu diglante woon au niveau international. Euh, ci affaire objectif de développement durable yooyu donc loolu liggéey bu normal la bu naturel boo xam ne société civile dafa am responsable daf ci am responsabilité ak rôle bu muy joué atelier bi euh, daf ñuy tax ñu regrouper ñi nga xam ne ni ñoo nekk ci base bi parce que ñooñu ñooy dund yëf yi ñooñu ñoo gën a jege communauté yi pour ñu xam exactement euh, fan lañ ci toll mais également ñu recueillir seen avis Euh, ci nii ñuy doxalee mbir mi ndax noonu la wala du noonu mais également recueillir ay recommandation ci naka lañ ko mën a defaree ba mu ba mu gën a baax parce que comme ni ngeen ko xamee Sénégal dafa volontaire pour dal di def euh, review am fee ca euh, New York au mois de juillet muy forum bu mag buy réunir pays yu bari. Euh, Sénégal bëgg nag wax ne ci wàllu ODD yi man lii laa ci defagum te ci ci rapport boobu noonu ñu ci xaar bu baax société civile bi euh, di ci xaar société civile bi di ci xaar surtout kongaat euh, donc looloo tax ñun ñu sabab ndaje yu mel nii di ko def Thiès di ko def fi Kaolack aussi nar ko def itam Kolda ak tamit yeneen réunion yoo xam ne dinañ ko seq ak euh, ñi nga xam ne nii ñooy ministères yi ngànk euh, wàllu éducation wàllu santé ak wàllu ndox meek euh, cet gi ak yeneen ministère pour xam exactement ñun lan mooy suñu taxawaay ci wàllum suivi boobu noonu du ci objectif de développement durable yi. kon bu wala nattuwaay bi du yéen euh, yéen a koy taxaw mais suivi bi surtout moo leen ëppal solo loolu. waaw xam nga ñun en tant que société civile suñu rôle mooy que ni ñu xool ndax euh, processus boobu parce que principe de base principe bi gën a mag ci objectif de développement durable dafa bëgg ne bu kenn des ginnaaw donc pour ñu mën a xam ndax kenn desul ginnaaw. il faut ñu mën ko topp il faut ñu mën ko saytu il faut ñu mën a xool ndax li gouvernement ne mu ngi koy def kenn desul ci ginnaaw te ñi ñi warta des ginnaaw ñu ngi ci base bi euh, donc ñun ñuy koy dañ leen di impliqué pour ñoom ñu wax ñu wax ñu naka lañu gisee mbir mi Euh, bu fekkee dafa am ay des ginnaaw yu des ñu wax ñu naka lañ mën a defee ba ñooñu bañ a des ginnaaw te yaakaar naa ne loolu foofu la ñu gouvernement di xaare itam ndaxte rapportu contribution société civile bi euh, ci affaire suivi ODD yi euh, wax nañu bu baax ne ñu ngi ciy xaar kongaat te vraiment ñu ngi féliciter gouvernement ci seen doxalin bu participatif parce que ubbeeku nañ bu baax euh, pour euh, mën a recueillir contribution wu société civile boobu société civile boobu aussi war a taxaw seen rôle euh, mu nga xam ne ni du doon rek wax ne waaw baax na wala baaxul mais également am benn vision bu critique pour xam bu doxul ñu ne doxul mais bu doxul itam ñu bañ a yem ci doxul rek mais war a joxe ay recommandations ci lan moo koy doxal mais loolu acteurs yi nekk à la base ñoom ñoo mën a joxe donc recommandation yu mel noonu looloo sabab euh, dajewu tay bi e je pense que dinañu permettre ñun en tant que société civile ñu ñu taxaw taxawaay bi ñu war a taxawee. Euh, yan secteur la gëstu bi soxal les ODD la wala. ODD yi 17 yëpp la. je pense que beneen principe bi am solo itam ci ODD yi mooy que ni ODD yi kenn mënul leen a diviser kenn du wax bi ODD bàyyi bi yëpp am solo donc euh, ñun dinañ dans premier temps. Euh, liggéey bu baax euh, ci yenn secteurs yi mais travail boobu dafay continuer euh, ndax réunion bi ñu nar a def ak sectoriel yi ci wàll éducation beeg santé bi dañ ko saytu bu baax dinañ saytu affaire ndox ak yooyu mais dinañ saytu yeneen secteurs yëpp ba nga xam ne nii 17 ODD yëpp dinañ ci mën a xam fan la ci mise en œuvre bi toll. fan la sooxee ak naka lañ mën a joyantee euh, bu fekkente ne dafa am yoo xam ne war nañ ko mën a joyante je suis à la direction générale de la planification des politiques économiques du ministère de l'économie des finances et du plan. Vos attentes par rapport à cet atelier? Euh, comme vous, le savez, le Sénégal s'est inscrit euh, dans la revue volontaire euh, qui va, se tenir aux États-Unis au mois de juillet. Et nous devons présenter notre rapport de mise en œuvre des ODD Et comme vous le savez, c'est national Ce n'est pas un rapport du gouvernement du Sénégal, raison pour laquelle nous sommes là pour accompagner le Congar pour qu'ils élaborent le rapport de contribution qui va nous permettre de faire la synthèse. Et justement, dans quel domaine, sinon, quels sont les critères un peu de, de sélection ou d'appréciation par rapport à ce rapport qui sera présenté Bon, comme vous le savez, le Sénégal va élaborer un rapport qui va porter sur les 17 ODD. Mais au forum, les discussions vont tourner autour des cinq ODD, mais nous, nous comptons élaborer euh, un rapport d'avancement sur l'ensemble des ODD. Donc nous attendons le CONGAT sur, pour qu'il prononce sur l'ensemble des ODD. Euh, ouais. Euh, en attendant la fin, sinon les conclusions de ce suivi, on est besoin de façon un peu macro par rapport à l'évaluation de ces ODD au niveau de l'économie euh, Comme vous le savez, au niveau du ministère de l'économie et des finances, on avait, en collaboration avec le Millennium euh, à travers le modèle TEM21, essayé de faire un petit exercice de simulation pour voir euh, euh, à l'heure actuelle si la tendance continue, quel sera le Sénégal en 2030. Bon, l'exercice, les premières conclusions nous renseignent que pour l'ODD 1, nous sommes pratiquement à 50%. Mais pour l'ordre des cartes, des cartes euh, par rapport à vraiment l'éducation, malgré tous les efforts que l'État a fait, si la tendance continue, vraiment en 2030, nous ne serons pas au rendez-vous. Mais fort heureusement, il y a la phase 2 du PSE qui nous permettra vraiment de corriger tout ça pour être au rendez-vous en 2030. Et quels euh, du moins. Bon, euh, comme vous le savez, l'État met énormément de moyens Mais est-ce que ce n'est pas une question de réforme Je pense que pour l'éducation, le principal facteur, c'est les réformes. Il faut vraiment mettre le focus sur les réformes pour développer notre éducation nationale. Mais en termes d'investissement, l'État est en train de faire d'énormes choses. Je m'appelle Salimata Bokoum, je suis la directrice euh, de l'ONG Side Savers et par ailleurs euh, coordonnatrice du groupe de travail de la société civile pour le suivi des objectifs

un important travail, en tout cas de, de suivi, euh, mais qui ne voudrait pas, euh, qui voudrait impliquer, en tout cas tout le monde, pour un processus participatif. Euh, donc euh, nous sommes là aujourd'hui euh, pour euh, déjà partager ces informations sur les mécanismes qui ont été mis en place depuis, depuis le début, mais également susciter la réflexion autour Euh, de, voilà, de, de, la mise en œuvre effective de ces objectifs de développement et que, comment les acteurs au niveau le plus décentralisé sont impliqués ou pourraient être impliqués. Parce que le principe de base euh, des objectifs de développement durable, c'est de ne laisser personne en, en, la, la particularité de l'atelier de geste La particularité, c'est euh, pour être en phase avec ce principe, je l'ai dit, de ne laisser personne en rate. On voudrait pas euh, que le niveau national euh, voilà, mette en chose euh, euh mettre en place des choses. Par exemple, euh, la société civile est très très attendue Euh, pour euh, sa contribution, parce que vous le savez le Sénégal va faire sa revue volontaire en juillet 2018. Donc euh, il nous donc de partager notre tant que société civile. Le donc, représente cette société civile-là et voudrait recueillir donc, la contribution de sa base, parce que je pense que c'est au niveau local que les Euh, c'est au niveau local où les acteurs, euh, en tout cas, vivent euh, les choses. Et pour que ce rapport soit vraiment participatif, il fallait impliquer cette base-là et puis recueillir leur avis et leurs recommandations. Maintenant, je voudrais juste par, euh, insister en disant que ce n'est pas euh, euh, une contribution que pour le rapport du Sénégal lors de cette revue volontaire. parce que ça rentre dans le cadre euh, normal des choses. La société civile a euh, la responsabilité de faire le suivi de ces objectifs euh, de développement durable et, et c'est dans ce cadre que, que rentre cet atelier. Et bien d'autres choses que nous avons également prévu de faire au-delà de cette revue volontaire. Nous allons continuer ce travail de suivi euh, pour nous assurer que, voilà, que personne ne euh, euh, soit laissé pour compte et que les recommandations de la base soient prises en, prises en charge. Vous avez parlé tantôt de mécanismes déjà mis en place. On appelle sur ces mécanismes. Oui, euh, c'est important parce que tout à fait au début, le Congad avait jugé utile de regrouper en tout cas différentes euh, organisations euh, pour euh, déjà réfléchir euh, sur euh, ce que le gouvernement est en train de, de, de faire en matière d'objectifs de, de, développement durable. Je pense que nous saluons ces euh, initiatives parce que beaucoup d'efforts ont été déjà déjà faits, beaucoup d'actions réalisées en termes d'alignement des indicateurs, mais en termes également de, de renseignabilité des, euh, des de ces indicateurs-là. Et beaucoup euh, d'ateliers aussi de partage du premier rapport que le gouvernement a eu à élaborer. Et donc, durant tout ce processus, les, la société civile a été représentée à travers le CONGAT, qui est membre de de ce, du comité ad hoc qui est mis en place actuellement par, euh, par, le, par le gouvernement pour euh, effectivement préparer la participation du Sénégal euh, à la revue donc, euh, volontaire. Mais je pense que cela rentre aussi dans le cadre normal des choses, hein, parce que la, le CONGAD en tant que organisation fêtière euh, avait ses responsabilités, je l'ai dit. Et en mettant en place ce groupe de travail, euh, c'était pour euh, voilà, euh, faire un petit peu le, jouer un petit peu ce rôle et de, de critique, de critique, parce qu'il ne s'agit pas simplement de, de valider ou de reconnaître ou de, voilà, de ce que le ce que l'État est en train de faire, de le suivre, mais également de d'apporter cette euh, euh, cette vision critique des choses. Euh, je pense que la société civile est beaucoup plus proche des communautés et c'est pour cela d'ailleurs que qu'on est très très attendu pour cette contribution. Donc euh, c'est entre autres euh, voilà des actions que le que le Congad a eu à, à faire, des mécanismes qu'on a eu à mettre en place, notamment ce groupe de travail. et l'atelier, ces ateliers décentralisés qui seront organisés dans d'autres régions également, à Kaolack et à Kolda, mais également des ateliers sectoriels qui nous, permettra, qui nous permettront maintenant d'échanger en détail avec euh, les différents secteurs euh, de l'éducation par exemple, de la santé, mais de, de secteur de l'eau et de l'assainissement, entre autres, pour recueillir également leurs... Euh, leur avis sur de mise en œuvre et également notre, euh, notre contribution par rapport à ces différentes réalisations. je voulais dire une chose également, euh, que c'est important que, que, voilà, que la société civile euh, se retrouve euh, dans ce travail euh, de suivi des objectifs de développement durable. Euh, parce qu'on le sait, à la différence des OMD, les ODD n'ont pas cette, cet aspect contraignant. les États n'ont pas l'obligation de rendre compte. Euh, donc ce principe d'accountabilité n'existe pas avec les ODD. Maintenant, les États s'engagent à faire des rapports. Et je pense que nous saluons l'initiative du Sénégal, euh, donc, qui s'est déjà engagé à faire euh, cette revue, mais qui, euh, à l'interne, est en train également de de suivre un processus euh, on peut dire très très participatif euh, pour partager un petit peu les résultats euh, de ces de ces réalisations euh, mais je pense que la société civile a un rôle euh, primordial à à jouer et euh, gagnerait à, à s'unir davantage euh, pour parler d'une seule voix et afin de voilà d'apporter une contribution euh, complémentaire si je peux le dire parce qu'il y a des gaps qui sont euh, soulevés constatés euh, beaucoup d'informations qui ne sont pas encore collectées euh, que la société civile pourrait valablement apporter comme contribution mais également jeter ce regard critique si ça ne va pas, qu'on puisse euh, alerter euh, pour euh, également faire des recommandations euh, pour que les gens, euh, en tout cas, soient euh, impliqués et qu'on puisse atteindre les résultats attendus. Merci.